dañoo am benn mouvement benn euh, kuréel bu bees bu ñu tënk bu tudd Union pour un Sénégal juste waaw te ma nekkoon président bi ànd si ak ay nit waaw war war si waxtaan pour présenter ko yi wax leen lan mooy suñu objectif waaw euh, si objectif yi mooy euh, xeex lépp luy xeetu injustice xam nga injustice dafa bëri ay façon tout le temps bu ñu waxee injustice Sénégal ñun dañuy xalaat tribunal te je disais souvent que même tribunal bi kuy juger ki peut-être que moom condition yu ñu ko teg pour mu juger mun na am si injustice parce que dafa jël carrière am pendant trente ans ñu dem jël benn ministre boo xam ne peut-être amul benn bonne fois ñu ne ko commandel kooku xam nga kooku aussi souvent am na ñoo xam ne tout le monde n'a pas le courage que certains ont voilà on ne peut pas peut-être remettre donc il faudra que ñu créer ñu ñu ñu réfléchir pour créer ay cadres Euh, de réflexion yoo xam ne dañuy proposer peut-être ay loi waxtaan ak sénégalais yi surtout aussi beneen beneen beneen point bi moo essayer un peu jibo loowaale un peu sénégalais bi ak dëkkam parce que boo xoolee actuellement euh, Sénégal dafa xaw a jafe tuuti depuis un certain moment ñu ngi ñuy teg coono boo xam ne man rek boo jëlee sama exemple je ne veux pas que ça tourne autour de moi mais boo gisee tey man nekk personne morale euh, mbir mi. c'est parce que am na lu ma si dund loo xam ne ñëpp gis nañu ko beneen aspect bi mooy essayer tuuti jiboowaale essayer tuuti aussi won Sénégalais yi lan mu kan mooy Cheikh Anta Diop voilà pour essayer un peu de réconcilier l'Africain avec l'histoire waaw dinaa def ay exposé désormais sur les œuvres de Cheikh Anta Diop waxtaan si ak Sénégalais yi aussi mouvement bi créé nañ ko si euh, si élection présidentielle buy ñëw ça peut aussi mun na tax nit ñi xalaat c'est vrai c'est normal mais moi pense que la période elle est parce que au cours des quatre mois qui vont venir dinañu jokkoo ak sénégalais yi wax leen lan mooy seen intérêt parce que ça aussi c'est important